mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen site bi di jant bi TV di site buy woote jàmm liggéey jub juboo jubale ak jaamu yàlla ngir njariñul senegal gi ñu bokk ak jant bi TV aboneel bés kolos bi man di topp mboolem suñuy programme te lépp lalu ci jàmm. kon mbokk yi tedd yi ñu desiwaat kon ci naafilay guddi weeru koor wi guddi fukkeel ga ak juróom-ñett ku ca julli fukki rakka bu ci ne faatiha ak sabbi xisma ak qul yaa ayyuhal kaafiruuna lu ci ne benn yoon mel na ne ku moom àdduna sépp àdduna sépp ak li ci biiram ba noppi dundale ko ba noppi dundale ko ci yoonu yàlla te araf bu ci ne des na ko ci tabaxal dëkk bu rëy ci aljana mel na ne it ku jaamu yàlla juróom ñaar fukki at yoo xam ne da ko yendoo woor te fanaane ko julli ci guddi ya mel na ne it ku jàng alxuraan téeméer yoon xaj màkka téeméer yoon waaye ba tey omra téeméer yoon te des na ko ci bindal tuyaabay joo xam ne yàlla rek moo xam na mu toll te balaa te balaa génn àdduna dana gis këram fa aljana daw bis penc ba du gis lu mu fa ragal wala lu koy e, jàqloo ba muy tàbbi àjjana mbokk yi ak jàmm ci seen site bi di jant bi TV di site buy woote jàmm liggéey jub juboo jubale ak jaamu yàlla ngir njariñul Sénégal gi ñu bokk ak jant bi TV aboneel bés kolos bi man di topp mboolem suñuy programme te lépp lalu ci jàmm